waaye eh, lii pour lan la. ndogul. ba ndogu. ndogul da nga am ay gan. dafa am lu xew ci kër gi. yaasa ginnaaw lay toog. xaw ma yaasa xeenaar xaw ma yaasa copine. waaw kay. waa Ndiaye lii ma def nii. lii ma def nii xamal mooy def nii xamal mooy def nii. xamal mooy def nii Togel fii. Togel li. foo gis yaasa ak ñetti soble. loolu sama nekku ci nga dagat ko ay dagat yu sew def ci soos ñun dong la Li mën nga ko denc ba suba ak ginnaaw suba. te yàq gi nga nekk lan la. te ñii seen télé bi nañ koy fay. dégg nga li ma wax. yaw na wax ak yow mu ngi bëgg a jot yow koor bu la yàlla dimbali nga am as doo si bëggal sa njaboot. mën ko la yàlla wax. ah, ah wax yàlla waxul ñu yàq dafa ni soo ko mënee nga def ko waaye mënuma ko yaa ngi dégg li may wax lii yàq la. dëgg yàq la ba bëgg a sa sa baay joxewul xaalis moo tax. sa baay joxewul dépasse bi bu ko doon joxe di nga di nga am yërmande ci man yow mën nga yàq torop ceeb bi na ko wàññi maa ngi bañ ko wut sama ginaar pour bégal la. waaw sama nekk jéem a dolli ci lii ñu bégal xale yi. ma ne lii dañu koy wàññi ba ginnaaw suba lii ba ginnaaw waati suba yam nag bëgguma ay wax. soo ko ma xoolal su ko mënul soos ñu dolli ci ndox. waaw dolli si tuuti nag. dolli ma ci de. waaw dolli si nag jàpp si yow tamit nag jàpp si nga dolli ci yow tamit. benn pomme de terre benn soos. lii laa man <laughs> lii laa man waaw dolliwaat waaw kaay dimbali ma rek jàpp ci yow tamit yaay ma booleeg yàlla kay mel ni madame Cissé di waaraate sa yi eh xool sa yi na nga ko bàyyi ah man ba ma lu ma gas bi ah waaw waaw dégg nga li ma la te ceeb bi bu ko bu ko sóoree nii na ko wàññi na dafa bëri di da ñaari pot ak digg dama lay ñaari hmm. de xam naa bu jëmee ma tuuti ci kër bu yee bu utal ko néeg di ko tëj xam nga dara toog fan na xare da bànnee xam man yow de boo gënee jëm mag tuuti fu yëpp utal la am néeg ber la moom loolu day daal anam caat caat bi dafa dee xaaral ya juga <laughs> eh ya ma wax na ma lépp loolu day daal xoolal képp ku di jigen nang siy jaar dégg nga ah loolu bu mu tax yow tamit na ngay kii nii bàyyi li nga iya, def xoolal xam nga lu ma lay yëgal yaa ngi mat jigen, te lii nee la ju daf lay dal ah c'est que fum la tombé la rek parce que fi mu nekk nii doo ah du mën a woor de. woor mënoo woor de xoolal eh mënoo woor xam nga nooy def ñu wàcc ci suuf ma defal la boolu fonde daal la ciy defal mio ba mu saf nga naan. eh xoolal mënoo woor nag mënul woor kay ah yaa may dégg bu doo woor nag léegi nag bu fekkee dañoo woor ba nga fiir nga fay. mais du eh mënoo woor déggoo li ma wax léegi xanaa ku mu dal doo woor dégg léegi nag bu ñu wooree nga fay. waaye bu dee ñeenti fan nga dog ñeenti fan ngay fay bu dee juróomi fan yi juróomi fan ngay fay ah aca ñëw leen ñu dem dem marché te ñëw ah, dafa am lu mooy gunge ji ngeen